dafa alors Minette si c'est bon nañ dem xool yi kàddu yi nga xam ne nii kii di Wally Ballago Seck yëkkati na fa daal di ñëwaat si plateau bi ñu ko faram fàccee. alors mu mel ni ça veut dire que euh, élément bi pareegul waaye comme nu koy xawoon alors c'est bon. ci anam yi mu faatoo la moom ak xale boobu ñu wax Wally yàlla na yàlla teeru leen ci yërmandeem yàlla bu leen cat jiitu ak képp kuñ fa fekk ak képp ku leen fa fekk yàlla yàlla defal leen jàmm dañ ñëw pour jàll rek waaw vraiment euh, caméra yi tàkk ñu moom vraiment ñu xaw ma nag nan la demee comment vous avez gënalu ñu gënaluñu parce que moo tax lu ma toog yàgg ñëw ma bëggoon baay bi yëpp dal rek waaw parce que xam naa li ñuy dund ñoom li ñuy dund xam naa ko waaw ah, ñàkk naa ñi gën a proche ci man donc xam naa loolu nu mu méttee donc moo tax ma doon xaar ba mu dal rek waaye ñu leen di jaale ñoom ñëpp waaw d'accord xam naa da ngay du ñàkk ko lancé parce que boo xoolee Sénégal daanaka semaine bi wala weer bi li ñu enregistré ci ay crime xaw na bari du ñàkk message boo xam ne di nga ko lancé bala ñoo jox suñu yaay waaw ah, ñu gën a ixsaanal rek ñu gën a am yërmande rek ah ku ci nekk rek nga xoolee ko comme sa bopp ah di ñaan yàlla defal ñu jàmm ci réew mi defal ko mbooloo mu jullit incha allah ah dafa am loo xamante ni nag ah, yàlla moo ko moom des ko jël ci moom ah li ci beneen bi ci wàll bi mooy sécurité te loolu nguur gee ko moom ah, ñu ngi leen ñaanal jàmm ñoom kattanu def ko yàlla ñoom kattanu def ko li ci des nag yàlla nañ yàlla sàmm rek parce que ku ñu dimbali rek moo am ak ku yàlla sàmm. fois day am ñu tombé au mauvais moment tu vois nangu ko. Hmm. jërëjëf. dañ ñëw pour jaal rek vraiment. d'accord yaay kàddu yi nga. li dal nii métti na lool. ah sàcc na ah waaw yal yàlla def li gën waaw ah, na yàlla def li gën waaw amin naa ko yéen ñëpp gis naa seen taxawaay yéen gis naa seen taxawaay nee yàlla fay yal yàlla aar yiir leen yal na yàlla yokk man bi laf cat musibaak balaa xëy moo ay gudd ko yàlla def ci daje Muhammad xamad gu gu soof moo tëdd fa laa yeew yal defal ndam ci li ngeen suugu nekk ci yal na yàlla aar jërëjëf yéen ñëpp yéen gis naa seen taxawaay jërë ngeen jëf Seck jërë jëf jërëjëf loolu na xam naa dañuy fay caméra bi rek ñu bàyyi ko mu jàllee waaw donc mu ngi noonu gis ngeen Waly moo ñëw di jaale Cheikh Mbacke gis ngeen Cheikh Mbacke nekk noonu fii nga xamante ni daanaka léppi Aziz Dabala la ku ni Cheikh Mbacke ni Aziz waaye Samba ngi noonu waaw Samba ngi noonu mhm. d' accord donc mu ngi noonu maa ko. waaw waaw nee ñu def mu def ñaan. alors moo ngi noonu ngeen gis kii di Wally Ballago Seck demoon foofu fi nga xam ne moo nekk Pikine euh, dam jaale ji nga xam ne mooy yaayu Aziz euh, Dabala wala Abdou Aziz ngi jégal bu baax a baax aloo mu nekk li nga xam ne c'est émouvant mais ba àdduna moo demee noonu ak kàddu yi nga xam ne tamit yëg na ko fo ñu koy jaajëfe bu baax a baax Waly Balago Seck alors Ousse euh, bettu la Sénégal ñu bañ a xaar peut-être mais xamoon ni yàgg yàgg na dem te wax na ko nee na perte na ñi nga xam ne nii xam na ñoom duñu yëg. Mhm. parce que dafa perdre ñi nga xam ne nii ñu projeté ci moom. ñoo gënoon a sori mhm. tey rek la ki nga xam ne mooy moomu dani nekk jour anniversaire am. Mhm. yaayam daal di si tegu papam amaan daanaka moom tamit. ça veut dire ñi ñuy dund moom tamit xam na ko bu baax. ñoo ngi ñaanalaat euh, Abdoul Aziz bu mhm. baax moom ñu ngi koy ñaanalaat bu baax amiin en tout cas ndeyam liggéey na ndeyam liggéey na lool xam nga lu tax ndeyam liggéey na bu ban tey mu ngi jot ay ñaan moom raafut ah kon ndeyam liggéey na wax dëgg fa yàlla di ñaanal it soxna moomi dani géey mm-hmm. nga xamante ni daanaka def na at ndax ñun ñëpp incha allahu rabi. Mhm. dinañ toog sunuy doom wala sunuy mbokk naan tey dañuy ñaanal nooree nii ngir def na at. Mhm. yàlla na yéex. amiin dañuy ñaanal diw ak diw. ndax mhm. def na at. ndax ci saayir yonent bi moonu gën te jëmmam dem na leeram naka ba dax ba tax lépp di walangaan waaw ah, boo déggee Serigne Touba doon wax laa siwaayam du ma dee du jëmm ma toxoon muy wax mooy lu nekk rek dafa am cëslaay boobu lumière divin bee taxoon muy wax muy mbaax gi mu moo yaru dafa am solo yaru xanaa gisoo moomoo di nga am yar am yar day tax ñu boole la ci loo bokkul ñàkk yar day tax ñu génn la ci loo bokk maanaam am yar day tax nga dugg ci ay boroomu xam-xam maqaama mhm. ñoom ñu jox la seen wàccuwaay Mm-hmm. ndax sa yar ñàkk yar day tax nga bëri xam-xam loolu di dugg ci ay boromi xam-xam ñu boddi la la moo tax woykat ba sëñ Mbay Jaxate dafa ni mm-hmm. asal lu mën a xew awal ndigal te yaru yow da nga làkk bépp biyu tey ak ëllëg maa la ko wax lépp lu nit di deeti ut yaroo ko gën gën koo rafet moo jara jox junni bi at di wut sëriñ bu la ko jox mm-hmm. Wally Seck a yaru macha allah. Wally Seck dafa yaru fa amee teggin. Mhm. en tant que maanaam pas ay Wally Seck musicien ak leneen. Mhm. waaye en tant que Wally Seck nit nii nii nii pas dara Wally Seck dafa am yar ba c'est pas possible. Mhm. gis nga kàddu gu jógul te man bizarrement euh, bu dara man kuy xool Wally di ko bañ wala di ko yeneen man bizarrement da may jaaxal. moo tax naa dellu ginnaaw. kuy xool Wally Seck maanaam di ko bañ. wala wala wala wala wala wala yeneen moomu. Mhm. man danga may jaaxal ci benn côté. Mhm. ku généreux la. xoolu jëf yu baax yëpp yi muy def moomu xanaa xamoo ni alxuraan dafa ni inal xasanaati yu si ina say aati gis nga nit dina dëkkee lu bon. Mhm. benn lu baax lumière am far yu bonam ndax yàlla rekk xam. te moom rek kay rabbi samaawaati wa maa fi ard moom mooy kiy jugé mm-hmm. moo tax démb ma ni la woon bi nga ma waxee ci ay rango ma ni ko yàlla na ko yàlla dimbali moo borom jëkk moo borom këram mm-hmm. ndax nag mu juggu rafet rek a jara ñaan Wally Seck ku baax la mm-hmm. ku généré la Wally Seck bu demutoon kenn du ko jam xam nga lu tax ba loolu amee ay njabootama fa njëkk mbay si njaay fu mu la Fallou Benjamin fu nekk waaleeng fa Mhm. Cheikh Anta Ndiaye fu mu nekk waaleeng fa ba ci Papis Messi fu mu nekk waaleeng fa mhm. te maanaam awaak banna yaa ñépp mhm. léppi Wally Seck ñu ngi woon ca dëj ba dëgg ba ca ñaan ga ñu nga fa woon kon waalee nga fa woon waaye nag heureusement ba mariage xam nga jikko sénégalais ci benn côté xam nga jikko sénégalais ci benn côté bu jug nga demal sa bopp ba pare wax kàddu yu neex bu ma nee bu ma sañoon sax caméra du tàkk. ndax mhm. indiwuma fi moo tax boobu ban sax ma doon bañ ñëw gi. xaw nga def ba gis ko ba yëg ko. ba yëg ko effectivement. waaye nag xam nga lu am solo. Mhm. innama ahmaalu binniyaati yéene. dëgg la. innama ahmaalu binniyaati. Mhm. yàlla yéene lay fay. te woykat bi ne na maa ngi ñaan buur yàlla xam-xam ba lu ma bëgg a def fekk ma xam ko bu wér a wér balaa ma koy def. waaw jàmbaar la. ndaanaan la moom yat bi daf ko dal waali par su nii lay demee mu mu waali lu mu laal mu dox lu mu laal mu baax fu mu nekk mu nooy maanaam du moom moom sàkku ko ci boppam mhm. man des fois on me dangaa bëgg waali c'est normal man bu ma bëggul waali tooñ bu dul dara deret gi mhm. te bu dul deret gi ñu sànni bu dul dara ay acte acte noble yi muy def ci jullit ak mbokkam ku ko bëggul doo nit doo yëg mhm. ay buñ xool yi yu sew sewaan yi am dañ xool acte yi mu mhm. moo ay temps nga dégg sax ci saa maa ngi déglu ñu naan la ñu wane fii xale yaa ngi toj fii caga yi nangam di leen sonal yu ne wax yooyu caga appartement yee gën yi na bëtu mhm. naa dañoo suturaal seen bopp rek waaye ñoo gën dëkk bee nga toj te kenn xamul dëgg maanaam gis nga fu mu ne nii xanaa xamoo ne waale kuy wax ci moom lu bon wala di ko dëkkal fenn gi du sa mag du sa rak du sa baay du sa nijaay daa bokkut ak yow. Mm. bizarrement ñun rek. Mm. suñ mag yeeg suñ ndey yeeg suñ baay buñ doonoon waali duñ bëgg muy demee nii. Mm-hmm. kon lu nekk rek dafa am cër buñ koy teg ñu ngi koy ñaan ak yàlla mariasin mm-hmm. moom lu mu mën benn rek mu mun ko fukk. Mm-hmm. xaw ma nag digge na wala diggewut. waaye lu mu diggee def ko. bokkut caméra yi tàkk ñu diggee ngir caméra yi njël leen jël waxoon naa te neewoon naa la fi ak ki fan liñ diggee bu leerul ma toog fii ñu xam ni wuñ dara dañoo fennoon insha allahu rabbi parce que ñoo dem ba ci njabootu jàmbur taxaw mhm. ñoo dem ba ci njabootu jàmbur nanaa taxaw caméra yi tàkk mhm. ñu naan yaay dinañ la jàppalee lii dinañ la jàppalee lii mhm. gis nga bu loolu bu nekkul wallaahi azim man maa ni dinañ ma dégg te tur yi laay lim ba muy leer incha allahu rabbi jërëjëf Ousmane alors euh, Marie Pierre ñu ngi lay nuyu encore une fois Mami Tall merci beaucoup déjà merci beaucoup yéen tamit ñu lay nuyu baax a baax di leen ziar Aïssa Dia billaay wàll nu yaroo man noonu laa yaroo yaroo yaa may seetlu bu baax si dëkk bi mu toll nii yaa ma gënal Aïda Goudiaby yaa ma gënal ñeen ñu si des ñëpp euh, Amada merci beaucoup yéen ñëpp ñu ngi nuyu baax a baax di leen ziar yéen ñëpp yéen ñëpp alors comme ni ko Yolande waxee maanaam générosité bi papa moo ko njëkk wax générosité bi nga xam ne mm-hmm. parce que papa waxoon ne ne waali xool bu mu yor bay maye moom mënul maye loolu mhm. donc ça veut dire loolu yàgg na si moom alors nana ya nga da nga gisee acte bi nga xam ne nii kii di Wally Ballago Seck moom tamit na ko comme toujours acte bu noble acte mhm. bu bu bu généreux moomoo euh, dafa souligner lu am solo muy muy yar gi nekk ci Wally Ballago Seck mhm. yar gi waaye tamit dal gi wane ni euh, su ma nekkee ci podium di musique su ma nekkee sur scène di musique kooku beneen Wally la waali bi nekk sur scène waali en tant que artiste la mais nag suñu tegee yëfi àddina yooyu nag ngir ñëw ci mbir yi nga xamante ni baatin la wax dëgg yàlla dañuy dañuy dañuy wane ni ñun kat ay nitu neen lañu ay nitu kese lañu waaye tamit ay nit ñu yàlla baaxal lañu donc ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy féliciter encore une fois ci acte bu noble bi nga xam ne def na ko waaye moomoo Eh, dama dama dama dafa affaire yi dafa dafa tàkk vidéo bi daf dañ ko teg ma ne la waaw kan moo fa woo caméra yi je nag parce que moom leeral na ko ci ay kàddoom mu ngi ne bëggeewu ma ko woon sax nii mhm. parce que bu ma sañoon du ñu ndax lii sax moo tax ma yeex a jaale si mhm. damaa jaale si rek di ko bantoo ko bantuwaat sénégalais yi encore une fois Euh, donte nag di fësal yi baax parce que tey jii boobu bu ñu waree wutoon ni Wally dem na fa te ñu gis fa la plupart des artistes dinañ ne Wally rek moo fa demoon dinañ ko gàkkal ak Wally ni ko yàlla bindee macha allah la mu bari ay sopp waaye bari ay bañ yaa ngi may dégg dinañ ne Wally kese fa ñëwul te dinañ yàq ci daram bi lu toll ni xeme lu mel ni xeme heureusement nag euh, bi nu ko wanewee waaye dafa am yoo xamante ni man jàpp naa ni euh, nit ki moo ko war a bañal boppam des fois yéen da leen di dal euh, la plupart euh, ba ba ñu ci bari dañuy ñëw di ko kaas dañuy dañuy dem foo xamante ni woowuñu leen fa samay naataango la ñu waruma leen a xas mm-hmm. mais loolu sa à dire leçon la rek boo xamante ni peut-être dama koy partage ak dañ koy partager ñun ci suñu biir mm-hmm. tey jii nit ki warul dem fu ñu ko wooweewul mm-hmm. warul dem ci lu nu ko yëgalul parce que man jàpp naa ni nit ku la ku la ku la yëg rek moo lay woone la ah diwkat nangam ak nangam lii ak lii ak lii moo xew su ma sañoon nga ñëw mm-hmm. mais euh, nit ki bu fekkee dañuy dem ba yow ñu lay gis ci foo xamante ni woowu ñu la fa da ngay dem ba perdre sa valeur mm-hmm. perdre sa valeur weesuwul nga taal sa caméra ñu naan la bëgguma ku ma filmer mbaa ñu lay daq mbaa ñu lay wax wax joo xamante ni te ñun moomoo li ñu yor dafa riche waaw ñun suñu caméra yeeg suñu micro yi barke Sëriñ Bamba artiste bu fi siiw bañ di la wax di la joobe ñun ñëw la siiwal kon ñun dañoo war a xam suñu gëdd dañoo war a xam suñu valeur euh, par exemple suñu suñu réalisatrice bi keroog mi ngi wax ni dafa am benn mariage boo xamante ni xaw ma benn conférence de presse boo xam ne dañ fa demoon euh, kooku di leen wax ne man woo kan moo leen kan moo fi woo journaliste yi nee dafa jël ay clique kam ay claquemam daal di dem loolu bokk na ci noblesse bokk na ci xam sa bopp bokk na ci xam yow gëdd bi la yàlla jox mhm. gis nga yor micro yor caméra c'est pas donné à n'importe qui bi ci topp mooy sutura gi nga xamante ni waal yi am na ko moomoom waaw sutura parce que nag bu ko neexoon caméra yaa ngi tàkk xam nga des fois caméra yi dinañ ne la ñu ngi fay suñu camera teewul ñu ngi continuer di filmer parce que maa ngi dégg guy gi naan waa nañu fay caméra yi te terewul ñu ngi continuer di filmer ba ci dee bi ñu ngi koy filmer bu ko neexoon nag mu wax li muy wax ci kaw waaye defu ko loolu mooy wane noblesse gi nekk ci Wally ko sekk mais niite gi nekk ci moom parce que nag tey jii comme ni ko ni waxee ne am na ñoo xamante ni digge nañ su fekkoon la muy wax wax na ko ci kaw dinañ ne Wally Seck di digge na fa ñu duñu ko may fu mu yàqee nakkaam Wally moo ne woon waa kër da Dabala dina leen defal nangam ak nangam keroog ba mu demee jaale ji lu tax defu ko ba heure bii te comme ni ñu koy waxee Cheikh Abdou Lahad Mbacké doon ko wax euh, du ma ne lu ma wax dinaa ko def waaye lu ma wax nar naa ko mhm. nit ki sabab rek la am waaye dogalub yàlla bi day wàcc mhm. nit ki mën naa am yéene lool waaye ndax jëf gi dina antu loolu it question la boo xamante ni jàmm bi saa boo xëyee war nga di ko posé wu question donc moom euh, il a tout compris donc ñu ngi koy ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax waaye tamit di wax yaayu Aziz Dabala ku dal la mhm. ku ku ku nite parce que nag euh, ba mu ba mu waxee des fois nga gis koo xamante ni euh, day ñàkk ba pare ñànki mm-hmm. euh, waa mbaa nga deele ba pare saalit te boobaak léegi nag wax dëgg yàlla gis nañu ak gëm yàlla ak yàqin gu nekk ci moom euh, waaye tamit di wax amin ci ñaan yi nga xamante ni ñaanal na ko Wally Balago Seck parce que nag euh, bu ñaanalee Wally Balago sekk doomu sénégalais yëpp la ñaanal d'accord alors nee naa mu ngi noonu alors ñu koy jaajëf bu baax a baax xool fu ak nga xam ne nii mooy Wally Balago Seck mm-hmm. euh, alalu Wally yaa ngi déjà xamu leen ni kii fu mu toll nii daa viré kii léegi si Wally Seck la bokk maanaam si FBF la bokk. lu ñu wax FBF la bokk. kii léegi naa waaw faramareen la la. Mhm. moo tax instant yii nii baal na àq def na lépp. nanaa gën a nekk faramareen Ousmane. waaw faramareen mais foog ngeen xam loolu fu mu toll nii dépasse na loolu. alors ba léegi dañuy wax si nga xam ni mooy Wally Seck yi nga xam ne nii démb tamit li nga xam temps yi xewoon na fa ñaan